ah waxtaan bi kum njiiti réew mi Macky Sall fa bëgg a dàq Barthélemy Dias wàccee ko ca bopp mairie bu ndakaaru allah wal fajri yéene kaay ñu ko xamal li naqari Macky Sall nag mooy li Barthélemy Dias jël capitaine Touré ak Guy Marius Sagna ca mairie ba ñu fay liggéeyee ginnaaw bu leen makki dàqee Macky Sall fa xamle la ne nekkut ne fañ laa fal maire rek lu la neex nga def di jël ku la neex muy liggéey ca mairie ba yëf yi demeewut noonu képp ko amal recrutement jël ñoo xamante ne dëppawut ak na yëf ya war a tëddee su boobaa loolu fay nul si du quotidien ne kàddu yi mi ngi ko yëkkati moom Macky Sall bi liggéeykat yi demee di ko jox seeni jafe-jafe ci atum 2022 bi jël na fa ay ay engagement waaye tëriwu tëkku na leen yéen kaay bi ne wax ji kay faleer Macky Sall comme tëkku kenn rek la mooy Barthélemy Diaz nee na ko ab maire bu fekkee respecté wut loi na ko wóor ne fañ koy wàccee dootu nekkati maire ndax su boobaa fañ koy rewake 24 heures yéen a kaay na Macky fa artu Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko a kaay a na du kenn ku may Barthélemy Diaz turbine yéen a kaay na leen fa ngeen di bàyyi wiiri wiiri gi Macky Sall fa xaw yoonu wàccee Barthélemy Diaz ca maire bu Ndakaaru lii mooy wax ji ndax la mu wax fa leer di nee na maire boo xam ne fa ngay jël ku la neex fañ lay dàq wàccee la donte ma ngay leeral ne fa xam ay maire yoo xam ne fa ñuy dem ba xam ne fa ñuy wàcc su ko defee ñu jël ay liggéeykat yu bëri bàyyi leen fa te état bi moo leen di fay te état bi mënta fay ñoo xam ne liggéeyuñ waaye ëlbati ko ne moom Macky a respecté loi bi les si ko a kaay ne seen kaw la dal yow seetal nee na journal yi ñu bind ci këyit maanaam quotidien yi ñaar fukk lañ ak juróom-ñeent site internet yi nag xée xapp lakk la ñeenti téeméer ak juróom fukk ci Sénégal gu ndaw gii loolu xam ngeen Afrique caaxaan-caaxaan la ñu ne détail Macky Sall ne réseaux sociaux yi maanaam Facebook beeg WhatsApp yeeg TikTok ak Instagram ak ñoom seen ñi nga xam ne fañ ci nekk di këttal nit ñi ay saagaay ndey di wax wax ju ñaaw dem na ba fi mu toll nii réseaux sociaux yi cancer la ci réew mi waaye Macky nee na fay dakk de ci naa nag faa fas yéene ak ñoom ñàkkante ñoom yi ci réseaux sociaux yi dakk la mënta dakkal nag te wax na ko moom Macky Sall mooy la am poste jafe-jafe fa nekk nee na fa jéggi dayo juróomi junney liggéeykat ñoo nekk post nee na waa kër gu kan moo ko mën a dimbale l'observateur na ko faala ci yokkal président beneen tooxi doona bu amaat ca poste yaaw seetal ab xattekat moo santaane ñu dugg ca biir kër ga lañ bët càmbar la fa xam waaye ba takk dara yeggee ay téeméeri téeméeri chèque yu ñu signé yu am jàpp quatre cent millions moom lañ fa fekk ak xaalis xobet xobet bu toll ci cent cinquante millions ca biir loolu nag kilifa ya fañ ko war a leeral laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na bës bu mujj ngir ñu déposé liste yi ci wote député yi tey jii la les si ko yéen a ñu ko wax de ba pare nag na wàllu Sénégal ñoom ña ngay daw fekk ji waa yeewi askan wi ngir ànd ak ñoom amal coalition ci wote yi di ñëw wote yi di ñëw nag xam nga na fay ànd ak parrainage buuxante ba doon am nag ci maay déposé sama parrainage bi doo ma njëkk a dugg jàppante dënnuy jóg ya fa daan xam ren dootul xam ah, yaaw seetal fa ñuy xamal tirage au sort société civile ba fa ñu bind turu coalition yépp dugal loxo seppi noonu lañ koy def defee ba mu jeex kenn ku nekk xam heure ba nga war a dem déposé njuumte ci wàllu jumtuwaay dootu tax ñu rejeté benn coalition laa si yéene kaay ne waaye Macky Sall investiture ya diiwaanu Thiès benn bokk yaakaar pataas bu tàng jir la moo tax fañ ko ko sexal ca pale ba lépp ngir mu lijjanti ko problème am na Thiès de ca bennoo ba direct news moom fa xëy di laajte ne Macky Sall nangu gi nangu maire yi nga xam ne ñoo bokk ci yeewi askan wi ñu amal Macky ko benn njëriñ ci wote maire yi tuuti ko noon waa yeewi ray Idriss Seck ak bennoo sa diiwaanu Thiès fañ leen mbuqi bañ tëdd donte yéene kaay bi nee waa yeewi tamit Macky Sall nangu gi mu nangu seen maire yi fale na janna xoloo yéene kaay bi ne Macky tamit fa jël risque xëcc politiciens yoo xamante ne askan wi fañ leen a suur këll pare si ñoom Macky jël leen ñu ràlliye nekk ci wetam te loolu du baax ci moom de ndax su ngeen fàttali ko Abdou Diouf l'an ko jigut ko fañ ko mbuqi woon ko fi 2012 jigut ko fañ ko mbuqi woon Macky Sall nag fas yéene koo def ah coalition ba mooy Thierno Bocoum nee na seen coalition ba aar Sénégal xëttët moo gën ci coalition yi nee na ay ponkal ngonk yoo xam ne fa ñoo def sacrifice seen jaar-jaar yëpp ngir intérêt Sénégal ñoo xam ne nekk benn ci lay si ko kaay nee na ñun nag duñu attaqué kenn waaye nag fa ñuy défendre ci ay principe intérêt réew mi mu xëlbatiku na suñ coalition bi fa ñuy continuer ba may leer laneen lu leer ba mel ni jant tusu baar mooy ne réewum Sénégal fa deltu ginnaaw ci classement mondial jëm ci li ñuy wax liberté de la presse maanaam journalistes yi am sañ-sañ liberté def seen liggéey normal national ñu bañ leen a xoqatal wala ñu bañ a parparloo li ni mel wen quatre la Sénégal deltu ginnaaw ci àdduna bi turbine yéen kaay moo ñu ko xamal critique yéen kaay ne ñeenteelu pouvoir bi ci réew mi muy presse bi fi mu ni fa ñoo dem quatre appude maanaam daanu nañ deltu ginnaaw jafe-jafey neen am faiblesse ci wàllu niveau nekk ci informel gu kenn xamunum toll réew mi yéen kaay ne ah Macky Sall wax ji wax bërki dee njaay war naa tax ngeen xam ne nga ne loolu jàmm la ci am réew laneen lu dul mooy ray gu dul xaaj du jeex yow seetal ab soxna bu am juróom benn fukki at koo jàpp takk ko xoj ko ba mu dee ci Tiwaawan pël Mariam Waar la tudd ci bésu korite gi libération moo ñu ko xamal na ko ma yokkal la ci ab elaw bu am fukki at juróom-ñaar moom la moromam ray ci lu ñàkk fayda ay yére fëgg jaay ci leen doon coow bañ ray ko libération na ko kañ ray Mor Jaañ la tudd fa doon weranteeg moromam ci yére korite gi biñ ko jamee paaka nag dara ja sotteeku taximaan yañ doon arrêté ngir ñu yóbbu xale bi hôpital fa ñoo bañ ne duñ taxaw benn moto moo ko doon yóbbu ca yoon wa mu doxee fa faatu turandooram nag ma ngay nettali ne laata korite gi Mor ndeysaan fa ñëw jox yaayam ñeen fukki dërëm na ko bu soobee yàlla muñal rek jafe-jafe yi nga nekkee danaa la ci génnee su ma màggee fay góorgóorlu ngir tekki far ñu doxee ko faat ko ndeysaan les si ko yi ne kaay na leen loolu ginnaaw raay la amee waaye am na tamit beneen ndaw loo xam ne ay agresseur ñoo ko rey ca golfe sud gi ñuy wax UNIS gi ci Sénégal fa hëpp maa tey te ñaaral dara du la ca fekk ngir nag rey gi dakk ñoom waa UNIS fa bëgg a li ñuy wax pétition sàkku ci Sénégal yi ñuy signé képp ku d'accord ci delloo siwaat peine de mort maanaam ku rey nit ñu rey la Amadou Gueye ma ngi koy leeral ca l'observateur yàlla moom li mu leeral mooy ne rey nit ci maa tey leen rek ko mën a dakkal mooy ku rey nit ñu rey la tàggat yaram Sadio Mané rey na Boulaye Dia ak waa Villarreal Liverpool daal fa jàpp Villarreal di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi fa ko mbuqi ba mi bëgg a dee ñetti bal ci ñaar biir dëkkam Sadio lakkati na caax ya stade yéen kaay ñu ko xamal record yéen kaay ne Sadio fomp na Drogba ndax dugal na fukki bi ak juróom ci Ligue des Champions yi benn africain musu def aajo l'observateur na ko bii bi mu dugal démb gën naa dëgëral yoon wi mu aw ngir jël ballon d'or bi tey nag ci àllarba ji équipe bu mag a mag bi Real Madrid mooy dalal Man City tey dana bëri ñu jommi laneen lu jommal nit ñu bari ndax garaaw bu mu garaaw l'observateur moo ñu ko xamal yaw seetal fa ay nit ñu siiw Sénégal ak réew yi wër Sénégal Afrique gu ñuul gi fa ñuy dem Dubaay di fa jëlee xaalis bu weex tal waaye nañu def ba am xaalis ba na la ca dégg doy naar ya fañ leen di def loo jëf ju ko gën a bon ca ñaaw lu xel lu bon ta mën leen a jox seen xaalis ba bokk na ca ay xale yu jigéen yoo xam ne fañ leen di boole ak ay xaj xaj yi di leen sëy ngir ñu fay la wala ñu jël xale bu jigéen soppi ko ab xaj takkal ko geen muy wow muy mbaw ni xaj bi ci gën a garaaw nag te bon mooy soo nangoo fa ngay hubbi sa gémmiñ ga naar ya demee ca duus xay ginnaaw kër ci biir gémmiñ loolu fa nga ndaw lu bon te ñaaw enquête yéen kaay ne li ni mel nag mooy coow fi mu toll ni ci réewu Afrique gu ñuul gi ndax yëf ya fa yi génn nañ ñiy def TikTok ñi nekk ci bi ay star ci Afrique gu ñuul gi ñoo nangu naare di leen ko def waa ma ne xalalu àdduna wallaay jarul jëf joo xam ne duñ ko ko def sax bàyyi ma lu bonte te salte nga di ko nangu ndax xaalis feebar ngeen cay jëlee mujj dee ko torox wala kaana su ko defee xay xenu leen yéen fa ngeen di gàccal der bu ñuul